الحمد لله الكريم سلم على استغال بفرود وسنن سكرته لأنه قد ساخني لوطني به نفى ما أنفني وهذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن البغي والظلم والعدوان والصلاة والسلام على نبيه عين الأعيان وعلى آله وصحبه ذوي الصدق والإيمان وبعد فهذه قصيدة من القصائد التي كتبتها في الرد على الدكتور أحمد لو والقصيدة مطرزة بحروف اسم كتابه تقديس الأشخاص في الفكر الصوفي تواما قلا أهل الرضا والمحبة بأقلامه يؤذيهم بالمسبة قبول الصواب العدل أما جحوده فظلم وجور من لأهل المحبة دفعت بأقلامي إلى الحيرة الذي asaa ila ashyaaxina wal a'immati yulaaqi jaza albaxyi mujtarimum baxa ala al awliya zu zulmi yanxu li zulmati sa aktubu ubdi makrumaati mashaayixi man illahu qad awlaahumu xayra qismati udaaficu can ahli tasawufi man xawaw safaan axibaan li rabbi lbariyati laqad jahadu lchaytana wannafsa walhawa wa hum tallaqu ddunya xawaw kulla munyati ila xadrati lwahaabi qad wasalu dhawi naimin muqimin faizina bi wuslati shumuusu maxad adwaa'uhum kulla zulmatin maxaw an muriidihim maan kulla gaflati xasirta xitaabun lilladi lam yuhibbahum uwajjihuhu zal bagyi saari li tawbati ila allahi tub yaa ayuha almuctadi alladi bi zulmika qad waajahta kulla al ahibati sadadta an saadaati mustahzian bihim falasta wa rabbi zactisaamin bisunnati fataxta liman waalawka baaba gawaayatin wa hum daxaluuhu lgurra sabbuu bi lacnati yasubbuuna kulla al awliya al atqiya fala yuhibbuuna daa fadlin wala daa mazijati asaa'u ila kulli shuyuuxi bi sabbihim wa tafsiqihim sammawhum ahla bidcati asaa'u ila kulli shuyuuxi bi sabbihim wa tafsiqihim sammawhum ahla bidcati li rabbil baraaya waxdahu alxukmu maa lakum min alxukmi cheyun ma lakum gayru sumcati fadaixukum saarat tabiina tabiinu uzila ankumu sitrukum minkum tabi minkum taji kullu firyati fadaixukum saarat tabiinu uzila ankumu sitrukum minkum taji kullu firyati kulu min luxuumi almuslimina agtiyaabuhum lakum saara da'ban fi nahaarin wa laylati rududi lakum tanxu fa antum radattumu hudallahi raddan qad bada lilbariyati asatum ila ixwanikum qad xaqartumuhumu wa humu ixwanukum lilxamiyati lahum lam tuhibbul xayra kaffartumuhumu wa fassaqtumuhum duna ayati xujjati صممتم عن الحق الصواب يسوءكم wa yuzcijukum lam tadxulu fi lmahajjati widaadi liman abgadtumuhum li cilmihim wa acmaalihim qawman xawaw kulla nicmati fataxnaa lakum baaba almusaalamati idxulu linaxruja min haada alcanaa'i liraxmati yujaadilukum bilxikmati alshaaciru alladi suqii biku'uusi alshaykhi man jaa bixidmati yujaadilukum bilxikmati lshaaciru alladi suqii bi ku'uusi lcheykhi man jaa bi xidmati yusalli ala maxduumihi man lahu bihi yaquudu lmunaa yucli lmurida bihimmati subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh mbokki jullit yi seen mbokk Abdou Khadre Ciss moo leen di nuyu te di leen ziyaar di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi alxalifat al aam li taifati al muridiya sëriñ Muntaqa Mbàkke di ko nuyu di ko ziyaar ni ki tamit di nuyu ak a ziyaar mbooleem kilifay diine di ñaan suñ borom tabaaraka wa motti li seen yéene ci liggéeyal lislaam ak tasaare woote bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di rafetlu bu baax seeni taxawaay ci diine ji di leen ñaanal suñ borom tabaaraka wa taala dolli leen dimbal di ziyaare tamit mbokki jullit diñ bokkal réew mi yépp ñu rafetal dëkk gin dëkk ak ñun di sàmm xàq suñ borom tabaaraka wa taala ci ñun ñu nit ñi sàmm xàq suñ borom tabaaraka wa taala ci ñoom di ñaan suñu borom tabaaraka wa taala kenn ku ne ci ñoom la ngay yéene ci aw yiw jëme ko ci jaami suñu borom tabaaraka wa taala yi yàlla la ci suñ borom tabaaraka wa taala defal lu kawe sa njort kon mbokk yi ñu fas yéene dikkati rek incha allahu taala ci liggéey boobu nga xam ni. dañ ko tàmbali ànd ànd ko ak yéen muy liggéey boo xam ni moo di taxaw defendre nit yàlla yi doonte ñoom sax nag suñ boroom tabaaraka wa taala moo leen défendral boppam ndax moo wax ni man aada li waliyan faqad azantuhu bil harb waaye nag loolu du tee ñun njaboot gi nga xam ni dañoo nekk ci seen ron jamono buñ gisee koo xam ni dafa jug daas xalimaam wala mu yëkkati aw làmmiñam jéeme ay kàddu yu safaanu yu tegginuwul ci ñoom dafay bokk ci suñu war war nag ñu dikk nag taxaw jàmmaarloo ak kooku xamal ko ni ko kat ñi nga bëgg a dal ci sa kaw kat yàlla def na ci seenu njaboot ñoo xam ne nii mën nañoo taxaw jaamaarloo ak yow ba doo egg ci ñoom loolu rek mooy jubluwaayu liggéey bi di ñaan nag suñ borom tabaaraka wa def ko muy liggéey bu ñu nungu te defal ñu ci tawféexi àdduna ak àllaaxira kon rek ñu dikkati ci sunu xasida gi nga xam ni mooy suñu ñetteelu xasida ci diwaan boobu nga xam ni dañ ko tënk ci xarafi yi téere boobu muy taqdisul ashxaas fi fil fikri suufi xaraf bu nekk ci alxuruful hijaiya ñu def ci ak xasida tey nag ñi ngi ci suñu ñetteelu xasida muy xaafiyatu ah, ta di attaa'ul marbuta ndax xarfu taa dama ko defal ñaari qasida ak attaa'ul marbuta ak attaa'ul maftuuxa benn bu ci nekk def naa ci qasida kon tey ñu dikk ak yéen ci attaa'ul marbuta ma ni bismillahi irrahmani irrahim kon ginnaaw bi ñu tuddee tur suñu borom tabaraka wa taala alhamdulillahi alladi cant ñeel na yàlla mi nga xam ni amara moom dafa digle bil adli ci ak maandu wal ihsaan akuk rafetal suñu borom tabaaraka taala daal lim digal képp ku ko gëm mooy na nga maandu te na rafetal wa naha waaye moom suñu borom moom nag dafa tere anil baghi ci lépp luy ak bew ak bajantu wa zulmi ak tooñ wal udwaani ak noonoo sa mbokki jullit suñu borom tabaaraka taala daf ko tere wasalaatu xéewalug yàlla nag wasalaam ak jàmmam ala nabiyihi yàlla na nekk ca yonentam ba aynil ayaan yonent boobu nga xam ni mooy kilifa kilifa yi wa ala alihi ak ak njabootam wa sahbihi ak ay saxaabaam zawi sidqi ñay boroomu dëggu wal imaan ak ngëm wa baadu ba loolu jàllee nag fa haadihi lii qasidatun genn qasida la min al qasaidi allati ci qasida yi nga xam ni katabtuha dama koo bind fi raddi ala docteur Ahmad Lo te bind ko ci tontu docteur Ahmed Lo wal qasidatu qasida gi nag mutarrazatun bi xuruf ismi kitaabi qasida la goo xam ni ñu ngi ko def tatriz te di ay abyaatam benn bu ci nekk dañu jël benn xaraf ci xarafi e, turu téere boobu indi ci benn bayit mu war a doon kon ñaar fukki bayit ak juróom ñaar kon téere bi kon moom mi ngi ko tudde taqdisul ashxaas في الفكر الصوفي mani tawa alkuna man ka nga xam ni nii ala dafa bañ ahla rida jaami suñu borom tabaraka wa taala yooyu nga xam ni suñu borom daf leen a jagleel ar rida te moo di gërëm suñu borom tabaraka wa taala ñoom daal ay jaam lan yoo xam ni eh, dañu ànd ak suñu borom tabaraka wa taala ba nga xam ni lépp lu suñu borom tabaaraka wa taala dogal ci ñoom rek loola ànd nañ ca wal mahabbati jaam yooyu nga xam ni suñu borom tabaaraka wa taala daf leen a defal ak bëgg yàlla nga xam ni ñoom suñu borom tabaaraka taala akub yonentam ñoo leen gënal lu dul yàlla akub yonentam kon nag kooku nga xam ni moom daf leen a bañ na xam ni rek alkuna waaye yëmul ci bañ leen waaye yu zihimu dafa teg daf caa teg di leen lor bi aqlaamihi ci ay xalimaam jël ay xalimaam di lor nit yàlla yi bil masabbati te lor ya moo di dafa yëkkati ay kàddu ŋàññ di ko jëmale ci ñoom ma ni xabuulu sawaabi nungu dëgg nungu ak njub nga xam ni boo gisee li li nga xam ni xam nga ni lii ak njub la xam nga ni lii lu baax la xam nga ni lii dëgg la nga teel koo nungu ma ni al adlu loolu mooy ak maandu ak maandu ci ab jullit mooy boo gisee lu baax nga ndungu ni kat lii kat neexut ba neexut nag waaye lii de moom lu baax la am amma juxuduhu waaye gis lu baax ba pare tekke sa tànk nunguwoo ak mbaaxam fa zulmun loolu ak tooñ la wa jawrun ak ndëngte la mil kon yow na nga jéng jullit bi bëgg a baax nanga nga jéng li ahlil mahabbati jëm ci e, nit yàlla yooyu nga xam ni suñu borom tabaaraka wa taala moo leen defal ak bëgg yàlla ma ni dafaatu jiñ ba mëx bi aqlaam ci samay xalima ilal xayrati jëme ci ngëlëmte allazi waaj yi nga xam ni asaa moom dafa ñaawan ila ashyaaxinaa jëm ci suñuy sëriñ wala a'immati ak suñuy njiit jëmm ji nga xam ni daal dafa jug jëme ay kàddu yu tegginoo di ci suñuy sëriñ ak suñuy njiit manit dafa bokk ci li nga xam ni dama ko fas yéene warlu jël samay xalima man man ah, yàq ko ca loo xam ni loole bu ko déggee loolu dina ko bëmax mu jëm ci ak ngëlëmte mani yu laaqi dina daje jaza al baghi ak payub mbew mujj tarimun jépp aji tooñ joo xam ni baxaa yaa ngay bew alal awliya ci kaw waliyu yi ndax zul képp kuy boroomu tooñ yan xuu na la leer ni yaa ngay jublu li zulmati ci ak lëndëm waliyu yi daal ñoom ñi ngi noonu suñu borom tabaaraka wa moo leen di sàmmal boppam moo leen di wattul boppam ndax moo wax ni képp ku ca noonu kenn ci ñoom na la leer ni dekk laa déclaré nga ko moom yàlla guerre kon nag képp koo xam ni yaa ngi jug di jëmale ak tooñ akum dëng ci ñoom na la leer ni yaa ngi tooñ waaye sa tooñ googu ci ak lëndëm képp la lay yóbbu ma ni sa aktu bu dinaa bind ub di feeñal makrumaati mashaayixi tedd di nga yi nga xam ni sama sëriñ su baax sii di nit sa saw fii am nan ko minallaahi te jële ko ci yàlla man wala bokk sa bu dinaa bind ub dii di feeñal makrumaati machaayix yi tedd di ngay sama sëriñ su baax sii di nit sa saw fii man man nit sa saw fi yooyu nga xam ni xad awlaahum méngale leen allahu yàlla xayra qismati ngën ji cër man daal dinaa bind di feeñal may yi nga xam ni ñoom sama sëriñ sii di nit tasawuf am nañ ko nit yi tasawuf yooyu nga xam ni suñu borom tabaaraka wa taala def leen a jox cër ba gën ca cër ya muy joxe udaafiu dinaa défendre an ahli tasawufi ci waa tasawuf man waa tasawuf ñooñ nga xam ni xawaw ñoom dañoo laq safaa an ak sell ahibba doon ay soppe li rabbil bariyati ñeel suñ borom tabaaraka wa taala mi nga xam ne nii mooy boroom mbindeef yi maa ngi waru gar la ci man may bind di défendre waa tasawuf ñoom ñooñu nga xam ni dañoo làq ak sell doon ay soppe ñeel suñu borom tabaaraka wa mi nga xam ni mooy borom mbindeef yi loolu nag li leen ko may ñoom nit yàlla yooyu laqad jaahadu shaytaana ñoom dañoo jihaat ak shaytaane wan nafsa ak seen bakkan wal hawa ak bànneex waxum te ñoom it tallaqu dunya dañoo fase àdduna xawaw loolu moo tax ñu làq kulla mun yëti bépp mébét boo xam ne nii ñu ngi ko doon am ci suñu borom tabaaraka wa taala ñoom daal ay jëmm lañ yoo xam ni dañoo jihaad ak seytaane jihaad ak seen bakkan jihaad ak bànneex fase àdduna ci loolu nag lan amee mbooleem loo xam ni ñu ngi ko doon mébét ci suñu borom tabaaraka wa taala xad wasalu ñoom nag egg nan ila xadratil wahaabi ca péeyu mayawaan mayawaakoon ba nga xam ni moo doon suñu borom tabaraka wa taala ban fa eggee nag zawi naimin dañoo mujj di boroom xéewal muqimin xéewal goo xam ni guy sax la ak ñoom xéewal goo xam ni deetul randu deetul tuxu faisina ñu mujj doon ñoo xam ni dañoo texe bi wuslati ci relation boo xam ni am nañ ko ak suñu borom tabaraka wa taala nga xam ni dañu egg ci suñu borom tabaraka wa taala sës rëkk ca moom ca nam yelle ca jëmmam ju tedd ja moom suñu borom tabaraka wa taala ma kilifa yooyu shumuusun ay jant lan yoo xam ni maxat far na adwaauhum seeni leer kulla zulmatin bépp lëndëm ma ñoom kilifa yooyu daal far nan am muridihim walif seeni taalu be an mboole seen kulla xaflati lépp loo xam ni càggante la lépp loo xam ni càggante la rek ñoom sëriñ su baax soosu far nan ko ci seenum njaboot ma ni kon nag xasirta baatu perte nga xitaabun waqante la uwajjihuhu boo xam ni dama koy jëmale di ci jëmm ji nga xam ni lam yuhibbahum bëggul kilifa yooyu jëmm ji nga xam ni daal képp ku settantal mbiram di nga xam ni moom ku noonu nit yàlla yooyu la man daal amul benn wàqante bu ma mën a jug di ko yëkkati di ko jëme ci jëmmam lu dul daal ni ko xasirta na la leer ni daal yow moom perte nga dal bax yi kon yow borom mbewte gi nga xam ni yaa ngi bajantu ci kaw nit yàlla yëkkati sa xalima di leen xas di yëkkati ay kàdduy safaan jëme ko ci ñoom li ma lay digal mooy saare na nga daal di gaawantu li tawbati jëm ci ak tuub li ma lay digal daal mooy yow mi nga xam ni nii a ah xaj na jëmmi jamono a ah am na ay intérêt yoo doon séentu ba tax nga jug yëkkati safaan bii jëmale ko ci nit yàlla yii maa ngi lay xamal ni dara gënul ci yow tey jii lu dul daa di gaaw jëm ci tuub dellu ci suñu borom tabaaraka wa taala te jéggulu ko loolu nga def moo tax ma ni ko tuub tuubal ilallaahi jëm ci yàlla yaa ayyuhal mu'tadi yow aji jalgati ji allazi yow mi nga xam ni ad waajahta jublu nga bi zulmika ci sa tooñ kullal ahibati soppe yëpp ndax nit yàlla yooyu nga xam ni ñoom nga xas ci sa téere bii muy taqdisul ashxaaf fil fikri suufi nga xam ni bawoo kenn ci ñoom ma ni ko loolu nga xam ni nii def nga ko muy ak tooñ goo jëmale ci ñoom yëmut rek ci ñim ko jëmale ci ñoom muy nit yàlla yooyu waaye na la leer ni ñooñu dañu am ay taalube am ay soppe yoo xam ni foo yaakaar ni rek wax ji egg na leen fa ci naqar ak mitit egg na leen fu ko raw kon nag na nga tuub nga dellu ci suñ borom tabaaraka wa taala ma ni ko sadatta yow dëddu nga ani saadaati walif sang yi mustahzi am bihim waaye yëmoo ci dëddu leen da nga caa teg di leen foye di leen mokkee falasta kon nekkoo wa rabbi loolu maa ngi koy giñ ci sama borom nekkoo zaati saamit di boromu jàpp bi sunnati ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ma ni ko da ngay tuddoo ni yow ak sa njaboot yéenay ahlu waaye loolu de du dëgg ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dani man kaana yuminu billahi wal yawmi al axiri aw liyasmut koo xam ni gëm nga ni yàlla am na gëm ni bis ci am na waxal lu baax te noppi yow nag lii nga wax yow ci sa bopp bañ nga ko ba fun la wooyee débat nga daw ndax leer na la li nga bind ci sa xalim bopp ñemoo ñemewoo toog fenn di ko leeral ci sa làmmiñu bopp bañ na ko ba buñ waxee nga ni téere bi ñi koy ñi ci wax ñoo xamul li ñuy wax te fekk nag wallahi alazim ñi ciy wax ñépp kenn sosul sosalu la lan fay wax lépp yaa yow sa bopp yow yaa ko waxal sa bopp xam naa sax foofu dinaa fi jéggalu mbokk yi ndax ni ma leen ko digge woon ni leen bala may duggati ci xasida yi damay indi aslëf ci téere boobu tey yàlla dafa dogal ma xaw a galfan ba nga xam ne nii jot gi mayewuma ko ni ma ko bëgg woon bëgg woon ma war a génn ci téere bi li ma ciy génne waaye incha allahu taala bu ñuy dikk ci xasida gi ci sës incha allahu danan ci dikk ca nam gën a yaatoo incha allahu taala ma ni ko kon sadatta dëddu nga ani saadaati walif sang yi mustahzi am bihim di leen foye di leen mokke di leen caaxaane falasta kon yow nekkoo wa rabbita loolu maa ngi koy giñ ci sama borom zaat saamin yow nekkoo di boromu jàpp bi sunnati ci sunna si yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ko kon fataxta ubbi nga li man ñeel ñi nga xam ni waalaw ko dañ laa waayoo baaba xawaayatin ubbil nga leen buntu bewte waxum te ñoom nag ba nga leen ko ubbilee daxaluuhu dañoo dugg ca bunt boobe sabbu ñoom daal ña ngay ŋàññ alxurra mboolem sang yi bi laanati boole ca di leen rëbb li ñu suñu borom tabaaraka wa taala jàngal ci alquran mooy walladina jaau min baadihim yaquluuna rabbana agfir lana wa li ixwanina alladina sabaquuna bil imani wala tajcal fi qulubina gillan lilladina amanu rabbana innaka rauf rahim ña jiitu ci sa mbokki jullit la la war ca ñoom mooy nga di leen jéggalul suñu borom tabaraka wa taala di leen ñaanal njéggal di leen ñaanal yërmande waaye nag du yëkkati ab safaan di ko jëme ci ñoom ndax lépp loo xamante ni nii yàlla dogal na nga gis ko ci ñoom muy loo xam ni muy loo xam ni jàpp nga ni lii dëppoo na ak dëgg amul benn sikk sàkka ñoom loolu mooy la taxoon mooy la leen taxoon a jug waaye lépp loo xam ni tamit dem nga ba xool ko ba jàpp ni lii kat safaanub loola la na la leer ni xaj nga mën naa am yow sa bopp sa déggin moo la nax bu fekkee tamit loola nga ca xalaat moo am amut kenn koo xam ni suñ borom tabaaraka taala musal lu ko ci ah njuumte suñ borom tabaraka wa taala nam ko waxee ci alquran wa ma arsalna min rasulin wala nabiin ida tamanna alqa shaytaanu fi umniyatihi ila axiril aaya kon lépp loo gis ci sa mbokkum jullit ci safaan lan la sant mooy yow jullit bi na ko suturaal te nëbbal ko ko waaye nag képp koo xam ni la nga def muy al muy as sunnatu wal mooy ahlu sunnati wal jamaa mooy yëkkati kàddu safaan di ko jëmee ci sa mbokki jullit ak di topp seeni ñaaw-ñaaw ak di topp seeni awra di ko wane na la leer ni ëllëg da nga am lijjanti bu rëy a rëy rëy fa kanamu suñu borom tabaaraka wa ndax loolee nga dugg du la du lu doonut lu la war ma ni ko ñooñu ànd ak yow yasubbuuna ñoom dañuy ŋàññi kullal awliya wali yu yëpp al atqiya wali yu yu ragal yàlla yooyu falaa fala yuhibbuuna ñoom daal bëgguñu za fadlin kenn ku suñu borom tabaraka wa taala defal ngëneel wala za maziyati bëgguñu kenn koo xam ni nii suñu borom tabaraka wa taala daf koo defal ak may ñoom daal dafa mel ni daal gis ni kenn ci jaami suñu borom tabaaraka wa suñu borom tabaaraka wa taala jagleel na ko ngëneel wala mu jagleel ko ak may ñoom daal dafa mel ni loolu nungu ko wala saxal ko dafa doon loo xam ne nii dafa am lu leen di wàññi te it loolu wàññiwul dara saxal mbaaxu keneen loola fangul ci sa mbaax dara mani ko ma ni ñoom asaa ñaawal nan ilaa kulli shuyuuxi jëm ci sëriñ sépp bi sabbihim di leen ŋàññi wa tafsiqihim ak di leen jàppe ay saay-saay sàmmaw humu ñoom daal egg nañ sax ci di tudde nit yàlla yi ahla bidaati ñooñ biddaa ñoom daal suñu mag ñu baax ñi nga xam ni ñun ñu ngi leen di rëyal ak di leen fonk teg leen ci kaw ñoom egg nañ ci amul wenn tur wun leen di tudde lu dul ahlul bidaati ñooñ biddaa ma ni leen nag li rabbil baraaya ñeel na yàlla mi nga xam ne mooy borom bindee fi waxdahu moom képp alxukmu atte bi mbirum jaam ji ëllëg suñu borom tabaaraka wa taala képp moo koy atte maa lakum yéen amu leen minal xukmi ci atte boobu shay'un lenn amul kenn ci yéen koo xam ne mën na atte kenn ci jaami suñu borom tabaaraka wa taala yi ëllëg yàlla moom moom ab atteem. moo xam ku muy dugal ci aljannaam moo xam ku muy yóbbu ci ab safaanam yéen loolu amu leen ci dara maalakum yéen daal amu leen xayru sumaati lu dul déggtal yéen daal ay nit ngeen ñoo xam ni seen lépp déggtal la ak ngistal la ngeen di def la ngeen di def ak la ngeen di wax jëmmi suñu borom tabaaraka wa taala taxut li ngeen ci jublu daal mooy bëgg ñu xam ni yéen a ngi ci pénc mi ma ni leen nag fadaixukum loolu moo tax seeni gàcca faarat mujj na tabiilu di bir uzila ankum dindees na ci yéen sitrukum sutura si ngeen amoon sutura si ngeen amoon dafa mel ni sutura soosu dafa xaw te ji ndax mi ngi bàyyikoo minkum ci yéen kullu firyati bépp sos am na ci yéen ñoo xam ni taxaw nan ci kaw minbar ci biir jumaa foo xam ni nii yàlla képp lan fa war a sellal yàlla lan fa war a màggal di fa jàngal jullit ñi xam-xam bu leen di jariñ nga taxaw foofee jaami suñu borom tabaraka wa toog di la diglu nga jàkkaarloo ak ñoom di wax loo xam ni leer na ni la yow mi koy wax ci sa bopp waxoo dëgg ma ni ko moo tax fadaixukum seeni gàcca saarat mujj na tabiinu di biir uzila ankumu dindees na ci yéen sutur sitrukum seen sutura te jii moo tax mi ngi dikk minkum di bàyyikoo ci yéen kullu firyati bépp sos lépp lu ngeen wax buñ ko toppee ba ca biir aw sos lay doon dem na ci bo ba ci boroom téere bii di taqdisul asxaas la ëpp ci téereem bi ay sos la yoo xam ne nii daf koo sosal ay nit ñoo xam ni lam leen di sosal ñoom yëguñu géntuñu ma ni moo tax kulu yéen daal sax leen rek di lekk min luxumil muslimina ci yàppi jullit ñi yéen daal dafa mel ni yàppi yarami jullit yi moom ngeen fas yéenee def muy seenu dund di ko dundee kon nag lekk leen irtiyaabuhum ndax jëw jullit ñi saara dafa mujj dëban di baax la lakum njël leen fii nahaarin seeni bëccëg yéen a nga nekk di jëw jullit ñi wa laylati seeni guddi yéen a ngi nekk di jëw jullit ñi kon daal ah seen mbokki jullit yaa ngoogu sax leen rek ci di lekk seen yàppi mbokki jullit ndax suñ borom nee na ay yuhibbu ahadukum ay yakula lahma axi maytan fa karihtumuhu jëw sa mbokkum jullit moom mooy mel mi ngi mel ni rek bàyyi ba mu génn àdduna nga fekk ko fan ko tëral jël di dagg di lekk ma ni leen nag tanxu dafay jublu lakum jëm ci yéen ruduudi samay tontu fa antum ndax yéen radattum da ngeen a delloo da ngeen a dàq hudallaahi njubug yàlla gi nga xam ne nii moom la ñu suñu borom tànnal te loola mooy lan wa qulu linnaasi xusnan suñu borom tabaaraka wa taala nee na dee leen wax ci nit ñi lu rafet yéen nag fas yéenewu leen a fas yéenewu leen a wax ci kenn ci jaami suñu borom tabaaraka wa taala taala yi lu rafet lu ngeen di wax ci nit daal ab safaan lay doon moo tax ma ni leen tan xaw dina jublu lakum jëm ci yéen ruduud yi samay tontu fa antum ndax yéen radattum da ngeen a dàq delloo hudallahi njubug yàlla gi raddan ak dàq at badaa dàq gi ngeen dàq nag njubug suñu borom tabaraka wa taala jim ñu tànnal feeñ na lil bariyati ñeel mboolem mbindeef yi asatum ñaawal ngeen ilaa ixwaanikum jëm ci seen mbokki jullit qad xaqartumuhum yéen a ngi xeeb seeni mbokki jullit wa hum wa humu te seen mbokki jullit yooyu ngeen di xeeb ixwaanukum ñooy seen i mbokk lil xamiyati xeeb googu ngeen leen di xeeb nag ak di ñaawal jëm ci ñoom dara taxul ngeen def ko lu dul en ak aw tàngoor ak ñàkk sago goo xam ni nekk na ci yéen lam tuhibbu yéen de bëggu leen lahum ñeel seen mbokki jullit alxayra aw yiw yéen daal yéenewu leen kenn ci seen mbokki jullit aw yiw kafartumuhum ndax yéen a ngi leen di def ay yéefar wa fassaqtumuhum di leen jàpp ay saay-saay duuna ajjati xujjati te loolu ngeen di wax amul benn lay boo xam ne man ngeen ko ci indi ndax ñi ngeen di jàppe ay yéefar di leen jàpp ay saay-saay ñi ngi wax laa ilaha illa allahu muhammadun rasulullah di jàng alquran di ko jàngal seenu njaboot ñu koy mokkal yéen ñi ngeen jàppe ay yéefar jàppe leen ay saay-saay la mokkal alquran ci seenu njaboot yéen njaboot gu toll noonu amu leen ko gu mokkal alquran lan tabax ci ay jàkka tabaxu leen ko lan tabax ci ay jumaa tabaxu leen ko te yéen la ngeen tabaxaku néew ay financement moo ko tabax na ni ña leen di financé buñ teewoon seen loxo yéen du ngeen tabaxati dara ndax yéen li ngeen man mooy nekk ci jàkka yi ak juma yi di coow ak di jàppe nit ñi ay kéefër ay yéefar waaye fas yéene wu leen a dem ci seen suuf soo xam ni kenn jiituwu leen fa ngeen sàkk ko nekk fa di jaamu yàlla di bay di ko dunde ak di yar seen njaboot loola yéen fas yéene wu leen koo def kon nag ñi ngeen jàppe ay yéefar indi wu leen wenn lay wana bu mën a wane ni ñoom ay yéefar leen ndax ña ngay wax la ilaha illallah muhammadu rasulullah di jàpp di julli di natt azaka ku ci am loo mën a aja màkka def nga ko taxaw temm ci santaane suñu boroom tabaraka wa taala ma ni kon yéen samamtum da ngeen a tëx anil xaqi walif dëgg yéen daal dafa mal mel ni assawaabu lépp luy ak njub aku mbaax yasuukum loolu mooy li leen di naqari wa yuzijukum lépp luy ak mbaax akuk njub ak dëgg loolu def leen di déranger lam tadxulu na ngeen xam ni nag yéen duggagu leen fil mahajjati ci ngir mu leer mi ngir mu leer mi nga xam ni moom lañu ñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallama xàllal ngir moomu yéen jàpp leen ni duggagu leen ci biir wi yi man nag sama cofeel li man ñeel na ñi nga xam ni abgadtumuhum yéen da ngeen leen a bañ li ilmihim ngir xam gun xam ñoom loo xam ni yéen xamu leen ko wa amalihim ak def yu baax yu bari yoo xam ni yéen mënagu leen koo def kon ki ñaan képp a tax ngeen bañ leen ndax ñi ngeen bañ bu dee xam-xam ñoo leen ko ëpple bu dee ay jëf ñoo leen ko ëpple xaw man ñooñu ngeen bañ nag aw nit lan ñoo xam ni xawaw làq nañ kulla ni'mati gépp xéewal ci suñu borom tabaraka wa taala fatahnaa lakum léegi nag dinañ leen ubbil yéen sun mbokki jullit yooyu nga xam ni xaj nga da ngeen a nekk ci njuumte ah dun tëj bunt bi fatax naa lakum dinañ leen ubbil baabal musaalamati buntub jàmmonte udduxulu rikk waaye nag dugg leen li naxruja ndax ñu mën a génn min haada al anaa'i ci coono bii ñu nekkee bu ngeen defee ñu tontu bu ngeen waxee ñu tontu loolu dañ cee bëgg a génn kon ubbil nañ leen buntub jàmmoo ñëw leen dugg ci buntub jàmm boobu jàmmoo boobu bu ko defee ñu génn ci coono bii ñu nekk li rahmati ñun ñëpp ñu jëm ci yërmande suñu borom yu jaadilikum kii doon discuter yéen fii nag bil xikmati te discussion bi mu teg ko ci jastesse te teg ko ci xam-xam ashairu lazi mooy shaa'ir bi nga xam ni waykat bi nga xam ni suqii moom dañ koo nandal bi ku usi cheikhi ci kaasi cheikh ahmadou bamba man cheikh ahmadou bamba moom mu nga xam ni jaa moo fi indi bi xidmati xidma cheikhul xadim radiallahu anhu moom nga xam ni dafay fekk al ibada muy loo xam ni moom dafa war ñëpp ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni waaye moom nag ba mu dikkee daf ca dolli alxidma mooy di jaamu yàlla tey liggéey di ci jariñ sa mbo sa morom yi mbindeef kon nag moom cheikhul xadim moomu nga xam ni nag moo fi indi alxidma yu salli yàlla na julli yu salli yàlla na dolli xéewal ala maxdumihi ca yonante bi sallallahu alayhi wa sallama ma nga xam ni moo doon jaati géem lam daan liggéeyal man yàlla mi nga xam ni yaquudu dafay wommat lahu ñeel ko bihi ci daraja yonent bi almunaa mboolem ay mébétam yooli muy kaweel almurida ab taalubeem bi himmati ci yitte kon daal xéewal suñu borom yàlla na nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne nii suñu borom tabaraka wa taala dafay wommat ci barkeem mbooleem mébéti cheikhul xadim suñ borom daf ko koy wommatal ci barkem moom cheikhul xadim nag muy sëriñ boo xam ni dafay kaweel ak njabootam ci yitte na ko ko yonante bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon rabbi ashaabaka bil himmati wala turabbihim bi dars yaral sa njaboot ci yitte te bañ leen a yar ci njàngum kese yitte jooju nag moom la def ci ak njabootam moo tax luñ song rek loola sotti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk Abdoul Qadir Ciss jërë ngeen jëf alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lianna xad saxani li watani bi nafa ma anfani wa hadani